salaamaaleykum wa rahmatullah ñi ngi leen di bëggee ah te di leen màggal saa su ne ni leen ko waxee tey nag dañu ñëw sama secteur euh, KMF ah ñu koy wax kamb 100 pour cent Galsen ñun ñoo fi ñëw tey seet si benn ndaanaan boo xëy ne euh, Real kaana lañ koy wax tey nag dama am plaisir ah, ñëw fii parce que sama début hip hop ah fii la euh, di kamb defe naa année 2005 2006 Riot mi ngi fi woon. Euh, soxor kaddu mi ngi fi woon euh, am barxaam ndeysaan euh, léegi taalibe Baay la nekk mu xaddamu Baay fi la nekkan kenn faal aussi mi ngi fi woon tey am ay boy yu ñëw ah jël relève bi pour bëgg a yëkkati hip hop Kamef mu dem ci kaw ah, te vraiment ah, ah, réel Kaane ku ko xam ne benn réel la boo xam ne aussi mi ngi ci biir hip hop mais mi ngi biir Kamef mais mi ngi def lu nice tey nag ñu ñëw seet si ko ah tey defe naa den waxtaane lu bëri ci hip hop bu Kamef waxtaane aussi ci yi nga xam ne mi ngi nekk biir Kamef di solo wala di feesal saal yi nga xam ne moom mi ngi biir Kër mbay Fall parce que am na benn public boo xam ne euh, macha allah comme ni ñu koy waxee ci hip hop euh, ñi ngi koy wuysi ah te loolu defe naa liggéey bu nice la ciy def euh, Ruel ñu bàyyi la nga nuyu mbokki CIK TV nuyu mbokki internet yi nga xam ne tey ñu ngi lay seetaan ak waa 100 pour cent Galsen. oui asalaamaaleykum maa leen nuyu yéen ñëpp bon di leen wax c'est Ruel Kana 21 artiste ak Kër Mbaye Fall. di def lu bëri bëri bëri bëri tey ma ñëw def euh, émission avec waa. CIK TV. CIK TV. Mhm. mu doon lu nice quoi mu doon lu nice. mu doon lu nice nice koo xam ne maa ngi koy remercier ba pare di fi teew yëpp. nag dëgg la mhm. mhm. dugg ci milieu hip parce que euh, defe naa am na sa benn grand boo xam ne euh, Mr Ndiol ah maa ngi lay béggee bu baax a baax parce que sa grand nekk na koo xam ne def na lu ne ci hip tey man bu fekkee danga ñëw jël yoon boobu noonu du ma bett ban année nga commencé dugg ci hip hop ak lan moo la dugal ci milieu hip hop wala da nga jékki-jékki gis grand bi am bagage si ëpp ko doole nga ne non bi toogal man ma ñëw seere seere seere seere bagage si quoi a xaw a yëngal daal di ñëwaat toog quoi. waaw waaw effectivement maa ngi def musique deux mille deux mille dix sept. deux mille dix sept. deux mille dix sept laa def man man ma fi man ma fi mu nekk loo xam ne nii. dafa neex waaw dafa neex dëgg la. sama grand frère nekkoon artiste boo xamante ne fu dem da ko doon toj mm-hmm. di def lu bari bari bari bari mm-hmm. waaye tey yàlla def ma ni tey dinaa doon artiste boo xam ne tey ji partout dans le monde war nañu mën a suivre bon mooy mën a yóbbu drapeau Kamé fu sore sori ak drapeau Sénégal oui musique moom lu neex la quoi si <laughs> dañu dañu dañu affaire gars yi ne leen taxi yi euh, grand yi jox taxi yi ah yi ñoom wax loolu ah gars ma am ñoo xëy lañ wax neen ma grand bi moom moo la jox taxi yi parce que nekk na uh-huh. euh, koo xëy ne peut-être jamonoy Dadi Bibson kër gi defe naa bi ay kër gi di ñëw euh, kër Mbaye Fall ah Dadi Bibson ndeysaan ñu ngi jaa a commandeur bu bu kees defe naa ay année la woon ci hip hop est du gars yi ne leen est-ce la jox yenn textes yi parce que gars yi ñu moom si jàpp baax a baax a baax mu si jàpp baax a baax d'habitude des fois am fu mu taxawee quoi mais moom am na loo xam ne moom yow nit ki boo koy def muy nice rek si yow lay jógee quoi loolu moom d'habitude moom maa koy jóobal sax yow yaa koy yaa koy jóobal sa euh, début carrière bi ak léegi ñaata sawoon nga jot job ci début carrière euh, bi nga commencé hip hop ak léegi way job na 5 sound yo xamanteni sama sound la mhm. ak yenen yo xamanteni ay kilo quoi ay featuring mo té ci ay refrain di mhm. def lu ay affaire yu nice quoi ci mhm. doon def ay ci début ci début ci début sound sound bi nga jëk jog ci hip hop sa sound bi nga ñëk job ci hip hop lan la lan la def parce que defé sound bi nit ki di ñëk job ci hip hop wala musique sax la wax art bu mu ci mën doon sound bi nga ñëk def parce être day nekk sound boo xam ne nii lu lu lay doon ci sa début carrière boo demaatee ba ci ginnaaw sa sound boobu boo dee ko déglu ci côté mbind mi euh, ndaka la demee woon ci sa première sound bi nga bi nga bind wala ak bi nga duggee studio war a tegu ci beat beeg yooyu refrain bi ñëw xam nga <laughs> sound yi ñëw ndaka ndaka nga ko dundee waaw doonoon na lu doy waar doonoon na lu waar uh-huh. waaw parce que sama doomu nday ku naan petit moom it uh-huh. waaw doonoon na lu doy loo xamante ne nii ba mu doon dugg waaw nekkoon loolu lu métti si man bon ingénieur de son bi naa man nice del gën a teg rek mhm. waaw ñu koy gérer ba sound bi mën a nice mhm. mais tamit ba mu génnee gars yi ñoo ngi si doon wax lu nice mais xam nga d'habitude première sound moom mhm. mun na cool si ñi mun na bañ a cool si ñële d'habitude dañ naa naan bonne continuation rek tey noonu lañ ko defee rek gars yi ni ma bonne continuation voilà di jàpp rek ba tey affaire bi mën a nice <laughs> en tout yaa ma gën a xam réel Kaana la en tout moom lañ seeti woon ne mi Euh, moom it magum la ci bagage yi mi ngi def lu ne ci hip hop mais sa premier concert bi nga njëkk a ci hip hop bi nga yéegee ci kaw seen bi naka la demee. parce que lu doy laa lay wax ni waaw <laughs> ah, mu doonoon mu doonoon lu doy waar loo mm-hmm. xamante ne nii. boobu maa ngi koy defee bon maa ngi koy defee benn dëkk bu ñu naan ginnaaw Touba. ginnaaw Touba allahu akbar nga xam ni musique rek ak doy waar. doy waar uh-huh. xam nga amul moom boo ko amee si dara moom bu ñu la joxee invitation fii ba feneen ak feneen da ngay dem. Mm-hmm. bo maa ngi ko defee woon foofu noonu mais premier jour ma yéegee. Ah. waa sentir naa sama bopp tamit yëngal naa gars yi apprécié nañ uh-huh. bi nga yéegee amul benn trace bu am ci yow première fois nga yéeg seen war a ñëw présenter sa sound euh, surtout maa ci sound boo xëy ne euh, hip hop moom moo la pour nga pour nga présenter fa euh, nga nga nga nga folet fa drapeau KMF ndaka ndaka ndaka la bi nga demee ak ak première yéeg beeg bagage yi. sama grand Mister Ndiol la wax maanaam. Mhm. lépp loo gis boo koy def rek jëmbat si flag fayda moo tax premier jour ba ma doon yéeg kaw seen jëmbatoon naa si flag fayda boo xam ne gisuma si woon benn complexe boo xam ne dama a xam ne dama dañ doon dugal sama nopp yi del joob del def lii mhm. xam nga d'habitude loolu noonu moo lay poussé ba boo yéeg si kaw seen fit moom may mhm. naa kii mais d'habitude moom <laughs> waaw yàlla dimbali na ma ba ma yëngalee ba wàcce waaw affaire yi naa soon na gars yi tegoon ma benn artiste boo booy première sang woonam gars yi tegoon ma gën di uh-huh. duggaat tuuti ci sa biir famille sa début euh, hip hop. parce que gis nañ ne yaay yu bëri tey bu fekkee da nga débuté hip hop wala soit sax yéen di xaw a am sens tuuti ci benn ci ci benn temps ak fi jamono bi toll sa début hip hop ak sa ak waajur bu jigéen ndaka la ndaka ndaka la demee. way waaw doon na lu doy waar nag lu xaw a triste quoi. way maanaam moom daf ma bëgg bëgg boo xamante ne man mënu ma ko wax. dëgg la même bu dé damay def lo xamanteni neexul askan bi wala lo xam dama koy def mu koy gañ sax mhm. neex na ko quoi deug la xam nga nday mom kenn mënu ko fay quoi même boy def lo xamanteni mom lénal ko li neexu ko da mhm. la ci nangul mhm. mais machallah sama yaay daf ma dimbali euh ba premier jour ba may def manam ba nay ba may koy wax dama def musique teggu ci baat parce que d'habitude sama mère mom artiste la won famille bi danaka ñepp ay artiste lañ deug la xam nga tey ji man ma ñew gën ci fës gën ci wane affaire yi bu doon lu lu cool quoi xam nga mère bi momit nangul ma lepp ba lepp lu may def da si teg loxoom. génne lu bari def ko si. waaw waaw mu doon lu nice. mu doon mu mu mu doon lu nice ah. a TV ah, nekk foofee ca Zac Mbao ñu ngi leen bu baax a baax di bëggee samay cameraman ah gars yu baax yi yéen a ngi ci ginnaaw di job job bu nice ah ak gars yi nga xam ne moom waa Kër Mbaye Fall ma meen sama grand mot maa koy bëggee bu baax a baax mais di ñëwaat sa deuxième sound sa deuxième sound titre bi na la tudd. titre bi mooy tudd Nigga Game bi ñoo ko moom. parce que dama gis sound boobu ne da nga def wala sa sound lu ci ëpp dama gis ne classe. classe la classe la. waaw waaw pourquoi pourquoi pourquoi classe bi. waaw parce que d'habitude moom boo nekkee si ab benn koñ moom xam nga euh, nga gis maanaam gars di teg lu wow te d'habitude musique bi léegi dafa nekk loo xamante ni boo bëriwul problème rek doo génn te xam nga mun nga di def lu naay sax mais gars nañ la déglu mais boo bëriwul problème doo génn foo nga ñemee bagaar foo nga ñemee di def yenn affaires yi mhm. waaye maa ngi bind ay cot ay thème maa ngi def ay affaires yu naay mhm. mais génnagul noonu. Mhm. mais mais mais d'habitude clash yooyu noonu c'est juste mhm. pour maanaam yenn artistes yoo xamante ne tey jii dañ ma sonal. <laughs> Uh-huh. te xam nga gars yi moom la bàyyi. waaw duñ la bàyyi noonu noonu noonu. dëgg la il faut nga leen di pegg. mooy tax musique bi mën a dund. Mhm. <laughs> mais kon euh, pic yooyu ngay jam noonu est-ce que du par rapport am na lu am ci seen biir moo tax sa sound yëpp ay pic ma ciy gis ay ay ay ay yu graaw xam nga géegi naa ay Assane Diouf yooyu yëpp nga koy nga koy jàlle ci biir sound bi bi lan moo waral lool. Assane Diouf yooyu noonu. <laughs> waaw daaw ñu joxe tuuti Assane Diouf rek. <laughs> waaw moom laa comme ni ko gars yi defee comme moom moom bawul kenn moom uh-huh. day day jox kenn ku nekk li nga moom uh-huh. waaw ñu xorom rek daal di jox xorom bi uh-huh. waaw léegi waaw vas-y kon leen xam nga Assane yooyu noonu moom d'habitude pour xamal leen rek mun naa lu bon mais d'habitude du ma ko génnee sama la xam nga looloo ko waral. est-ce que sa carrière pare nga pour jouer sawnu mbëggeel parce que gars yi neen gangster yu bëri euh, par rapport pare ñu pour jouer sawnu mbëggeel ñoom loolu la ñuy wax ndax sa carrière pare nga pour jouer ay sawnu mbëggeel. waaw waaw waaw pare naa si nag pare naa si nag. Mm-hmm. parce que maa ngi job trois sons yoo xam ne yëpp ay sawnu mbëggeel la quoi. ay nu mbëggeel lay doon est-ce que doo ci may benn quatre mesures. ci son mbëggeel bi xam nga ah. voilà après ñu doog a ñu quatre mesures rek ci son mbëggeel bi yaa xam xam naa ne eh. yi dañuy dund mbëggeel a ah, sama gars yi nga xam ne euh, <laughs> dañuy doxaani di laqatu eh. <laughs> maa leen di bëgg bu baax a baax a baax eh. bébi gàcce rek man ngay fay ma xam keneen taxul ma xam yow ma jàpp fa yow fa ni rek de bébi kaa ñu dem ñu ànd say waay yoonu ndaw du gaaw bébi toggal xaar ma dem gañ si teerale non yoonu ndaw du gaaw bébi toggal xaar ma dem gañ si teerale non war nga reere Titanic war nga reere Dubai war nga reere Sénégambia ñaanu waajur doom baa ngi jokkeer noppil sa yaay wuute na jokkee doon noppil yeah <laughs> mu nekk sound uh-huh. sound bu cool uh-huh. sound bu cool may waajal quoi uh-huh. sound sound bu cool la sound bu naaj sound boo xam ne acoustique la quoi dëgg la tamit acoustique moo gën a bari si lu may ci ci li ngay liggéey quoi pourquoi nga sentir euh, parce que ci sa début hip hop da nga bëgg da nga da nga génn ay son ay beat bass yu saf saf pourquoi nga bëgg a ci acoustique bi lan nga gis ci acoustique bi acoustique bi doon na lu ma impressionné quoi parce que des fois bu may seetaan yenn artiste mag yi dañ dañ may impressionné comme yenn comme yenn sound yu ñuy def ci acoustique mu doon sound yu nice sound yu cool yo xam ne dañ koy mën di déglu képp ñëpp dañ koy mën di déglu quoi lo tax acoustique xaw a lo lu nice quoi mhm, mhm. est ce que comme ni ma ni ma déggee ngay waxee est ce que dafa am benn grand boy déglu boo xay day jouer acoustique waaw man nak ñu may déglu bari na nak mais sama artiste bu ma gën a préféré si sénégalais moy mooy euh, daara ji family. Mhm. mooy Fada. Fada Freddy mooy man kooku mooy sama artiste. mooy sa artiste quoi. mooy Fada Freddy. dama koy déglu nice dama koy déglu nice. dama koy déglu nice. cái que ay sound am moom d'habitude moom dama koy woy comme si cái ni Fada mooy. Fada Fada mooy woy quoi en tout cas cái ma gën a xam ba tey ah Real Kana la ñu dalal seen émission 100 pour cent Galsen ak CIK TV mais ba dañuy ñëwaat ah ci leneen lu garaaw loo xam ne dama ko gis ci yow ờ, gis ko ci ci say sound liir ko ci sa ci sa ci cái comportement. Gaynde Njaay. parce que lu garaaw laa lay wax cái Gaynde Njaay parce que dem naa spectacle bu ne ah. man spectacle bu ne dem naa fa mais sa boss dama ñëw suur bu ma njëkkee ñëw sa sa concert. ma ñëw gis lu graw effectivement pourquoi gaynde ndjay parce que slogan la bo xëy wala concept la boo xëy ne maintenant yow yaa koy def Sénégal muy Gaynde Njaay waaw lan moo waral loolu secret bi lan la bagage bi joot bi lan la parce que man lu ma jaaxal la quoi. waaw mais <laughs> réel Kaana Njaay la sant de. Njaay la sant ma doon Gaynde Njaay nga doon Gaynde. <laughs> xam nga gayne Njaay nekk loo xamante ne nii daf ma daf ma naay daf ma neex quoi. <laughs> Uh-huh. xam ma xool mu doon benn style boo xamante ni dafa ànd ak sama sama sama sama sama jëmm. Uh-huh. ànd ak samay sànq. ànd ak sama li nga xamante ni moom laay teg ci kaw table bi xam nga mu doon gaynde njaay lu impressionné nit ñi tamit teg ci ma ne naa ko boole ci sama style gars yi di ko mun di jariñoo quoi xam nga da ci baax gars yi di jariñoo di gis say affaire ngay def loo xamante ni kenn defu ko ngay créer ay affaire yu nice xam looloo waral gaynde njaay bi ñu ko njëkkee xalaat nan la demee parce que yombul spectacle nga ñëw solool ay gaynde li gën a garaaw mooy soow bi soow bi sama bii moo gën a moo a graaw ci li ma leex noonu parce que daf ma arrivé fii ci foyer kàmb bii ñu nekk ah. defe naa mu nekk date boo xay ne wala boo xay chaque année incha allah ci kàttanu yàlla CIK bi ak gaynde yi. répétition lay doon wala lan gaynde nag dañoo baax. Uh-huh. dañoo baax macha allah uh-huh. mënu ko mënu ko wax quoi. Uh-huh. man bu ma gisee nit ki di sonn si man ndeysaan damay damay jaaxle quoi. xaw ma lan laa nit ñi nag. aw ma yoruma. mais xaw ma lu ma defal nit mais gaynde yi dañuy dem rek ci ñoo kenn ki mooy ay jabaram ñeneen ñi ñoo ngi seen i métier ñoo ngi liggéey mais d'habitude dañuy bàyyi seen lépp guddi gi dem terrain Jumenga di fa def li nga xamante ni mooy répétition yi di daj lu métti nag di daanu si suuf si di def ay répétition ma toog ndeysaan damay dem ba ni non ñii est-ce que man maa tax ñuy def lii waaw mu doon lu triste quoi mu doon loo xam ne ni man daf ma yem bon mhm. ma leen di ma leen di jaajëfal bu baax man leen ma leen di jaajëfal bu baax quoi parce que aw ma seen fay ñu jékki jikki gis benn benn benn xaaju bët bi nga def ci blanc bi lan moo war a loolu parce que <laughs> xam naa di nga ne nag dama la topp bu baax fekk na dama suivre <laughs> bagage yi ngay def pourquoi benn xaaju bët bi nga ñëw def ci xaw ma man lan la lan nga ciy def parce que man mënu xaw ba tey xaw ma en tout cas daal gis naa blanc bi xaw ma lu mu ciy dessiné noonu ci benn benn benn partie bi <laughs> lan la. waaw loolay wane nii tamit kaana kenn la ko waa kaana kenn la. xam nga gaynde tamit d'habitude boo yëg si kaw si kaw seen. normal la maanaam nga am benn style boo xamante ne tey jii nii. day mun a comparer ngeen mun a nduróo benn instant quoi. Mhm. mais looloo waraloon jour boobu noonu. ma génne affaire bi teg lu nice xam nga gars lu nice. mais kan moo la njëkk xalaatal euh, gaynde yi ak ak ak ak sa euh, kanam bi nga def ci bagage waaw waaw waaw esprit boobu fan la jógee xalaat boobu xam parce que. Euh. mooy loolu quoi <laughs> lu garaaw la quoi. waaw Mamadou Dia nag mooy jaar si yooyu nag. Dia Dia mooy jaar si yooyu manager xam nga mm-hmm. mm-hmm. taxaw moom bu baax a baax a baax a baax. xam nga mooy créer affaire yi di def ay affaire yu nice. Mm-hmm. xam nga mënu ko fay tamit. ku ñaari jabar moom. sax dëgg la waaw di bàyyi ay affaire mister moom ameen ñu ngi koy bëgg bu baax a baax. sëg si ay affaire xam nga kenn si dara quoi. mais ñaata ñaata ñaata ñaata ñaata gëtu concert li nga defagul. mooy deuxième concert. Mhm. bu ma def may waajalaat instant bi beneen concert quoi. Mhm. kon gars yi lan la ñuy xaar ci troisième bi. troisième bi parce que deuxième bi man moo ma fa fekk te gis naa li nga fa def. Mhm. kon troisième bi nan la nar a demee. waaw troisième bi ma leen di wax waa kii la rek. <laughs> Uh-huh. Euh, waa rab diwaan ji. xam nga. ñoom it dañuy ñëw taxaw bokk si troisième concert bi. nar a def lu garaaw garaaw garaaw gaa yëpp gaa yëpp si jàpp quoi. ñoo ngi koy defee plein air incha allahu rabi si euh, terrain manko bi. waaye mhm. donc lañ koy defee quoi mais léegi bientôt rek yàggatul incha allah. est-ce que xam nga li nga boot sa ginnaaw ci Kamef. waaw waaw yàlla may na ma si tuuti nag. Mhm. waaw parce tamit ngay def dara. ay nit taxaw wala ngay def dara ay maire taxaw ay kilifa xam nga dafa doon lu doy waar sax instant mm-hmm. bi man mm-hmm. mënatuma wax parce que dafa mel ni dañ ma sas quoi <laughs> dëgg la loolay problème bi mm-hmm. mu doon lu lu doy waar lu doon lu doy waar waa KMF moom it ay ay borom baax kese bi yaaw macha allah waaw ay ay ndaanaan ay ndaanaan ñoo fi ne ci moment bi yaa ngi préparé album wala mixtape wala max lan la fan si di xaar ci yow jamono ji waaw instant bi moom maa ngi préparé benn mixtape mhm. benn mixtape laay mhm. préparé quoi mhm. eh, maa ngi koy préparé maa ngi koy préparé bientôt disponible quoi en tout cas euh, euh, damay woy di la ko wax euh, Ruel Kana la ñu set si ko fii nga xam ne mooy Kër Mbaye Fall te li ma leen wax sàng rek bu rabee war na rab bu rabul war na rab parce que gis na ay gram tey ni ñu taxe woon hip hop bi démb tey mu màgg Eh, jël relève bo woné ne momit amna place ci hip hop bi war na mën a pas eh, li nga xamné ne moy moy moy mooy hip hop mais nak nga gissé hip hop Kamef parce que gis na ne say morom rek ñofi nek di def hip hop. waaw waaw eh, waaw té bëri na ñu xey ni man sétan na len mais classe bi dafa bëri nak nga gissé hip hop Kamef jamono ji waaw ko ah kii ah, hip hop bi Kamef bi Kamef fi waaw nice na trop nice na trop parce que gaay mom d'habitude ñong fi di def lu nice ñong fi di def lu nice mhm. rapport ya fi def lu nice. Mhm. oui. Mhm. waaw tamit son nag son classe maam son son classe nekkul rek mooy sound quoi. Mhm. nit war naa mën a def thème war naa mën a def ay yeneen sound yu mhm. dóob. yu bokkut ak classe quoi. mais ma wax ñoom ñu gën a jàpp hip hop bi parce que tamit bu benn bawee rek maanaam groupe bi maanaam am na lu si cóol quoi parce que tey jii booy dégg diw fële diw fële diw fële nga jekki-jekki am ko si bàyyi xaw day xaw a am kii quoi day xaw a am benn problème mu ndaw rek nit ñaan benn groupe benn même bu si benn nit génnee rek mhm. waaw am na fii seen boobaa mais dama leen wax ñu gën a jàpp ñoom ñëpp ñu a mhm. jàpp si bagage yi mhm. ñu gis beneen semaine boo xam ne defe naa ma état bi ngay classe xaw ma Macky Sall xaw keneen kiy bëgg a ñëw xaw ma ah lan moo waral lan moo waral lan moo waral loolu waaw waaw lu ñu dund dafa metti dafa tari lool euh, président ñu boole si nu ñu solidaire fii ku fi fallu pëpp mi nga xëccitee te fu ñu dëkk mu ngi mel ni fu ay nit guerre ba dee poto lampe zing sëgg naan si teen bi mur yi fi suur terrain bu taw a fendi lébu di xëccin mbaal non fii kenn du laxasi taal ku fi na sa bal pëpp li nga koy taal looloo waral loolu dëgg la looloo ko waral. Mhm. xam nga ku fi ñëw rek da ngay saccagé peuple bi def mhm. neex. te tamit mhm. war na mën a neneen lu noonu. dëgg la a a nice quoi. mooy loolu quoi en tout cas loolu moo waral loolu moo waral nga nga nga nga nga def nga def nga def sound boobu noonu. waaw defe naa bu dañu nekk jamono ji ci élection yi comprendre nga te bu ne bu ne artiste. xam nga euh, dama naan moom moo yore baatu. askanam tey defe naa taameef ku ko gis wala euh, xam ne am na ay détails yoo xam ne manqué na ci biir Kër Mbaye Fall tey nga nekk koo xam ne nii peut-être am na ñu nekk sa ginnaaw hmm. comprendre nga lan ngay wax tey monsieur le maire ci taameef fi nga xam ne tey mooy sa secteur lan nga koy wax waaw waaw surtout tamit euh, sunu foyer bi tamit suñu foyer bi foyer des jeunes de Kambo normal la tamit ñun artistes ñun ñoo moom quoi. Kër Kër Mbaye Fall ron benn foyer bu maanaam moo fi am mi ba léegi mënuñoo am foyer bu tax ñu naan foyer parce que lii kenn considéré ko fi mu nekk ni foyer parce que kenn toppatoo ko kenn defaroo ko te nous sommes des artistes bëgg nañ di tëgg ay yenn public yi wala yenn place yi ay concert parce que ab dëkk daa am lu koy doxal mooy concert yeeg yenn affaire yeeg ay jamono da nga daan gis ku doon def sa mariage si foyer bi nga ko yóbbu mais bon léegi kenn mënu ko toog si foyer bi parce mhm. mhm. tamit ñu mun a am ay jardin de public mhm. ay banc ay yoo xam ne d'habitude dañ fay mun toog ngoonement bi di fa soulager rek ma wax tamit ñu gën a jàpp si zone bi ñu ko gën a mun a def ree mu naes tamit suñu armee yi tamit maa ngi dégg fan ñu ni dañ koy defaraat rek yooyu noonu waaw mu doon idée bu naes tamit maa ngi koy rafetlu bu baax baax a baax a baax ma wax ko tamit mu gën a jàpp si liggéey bi mu gën a nice quoi. Mhm. yéen ñi nga xam ne yéen artistes yi nga xam ne yéen yéen a ngi biir Kër Mbaye Fall léegi lan mooy seen rôle ci côté boobu ci li nga xam ne euh, moom moo war a développé KMF pour KMF su yor beneen visage bu bokkut ak bi mu yoroon démb ba tey. waaw waaw waaw parce que ñun wax rek lañ mën ñu artistes yi wax rek lañ mën de. Mhm. mais mënuñu xeex mënuñu dóore. Mhm. suñu wax lañ yor bon dinañ dem studio génne ko kaas ko bu déggee seen i nopp dégg waaw ñu xam ne dégg nañ ko mais bon tamit ñu ñoom it ma leen wax tamit ñu jàpp quoi parce que ñun wax rek lañ mun tamit wax rek lañ mun mënuñu taxaw fenn di di sànnante ay xeer parce que loolu moom d'habitude passé nañ jamono jooju passé nañ mais mais defe naa am na leneen lu leen ci war lu dul côté yi ngeen def benn bloc xam nga pour ji ma xool parce que bu ne artiste aussi danaan partir de voix am na fu am àgg foo xëy ki nga xam ne mi ngi toog ci biir kër gi voix am àggul foofu noonu comprendre nga est ce que jotul tey ngeen nekk benn bloc pour mën a xeex loolu pour loolu dañ peut être ngeen ko xeex pas sànni xeer pas lakk pëno xam ngeen xool yoon bi gën a naas ngeen jaar la ko ci yoon boobu noonu waaw gaa yaa ngi gaa ay bloc sax gaa yaa ngi def dem toog mais xam nga d'habitude moom euh, léegi Sénégal da ngay wax ba sonn. Mhm. bon maanaam mais duñ la tal quoi mais xamul lu waral loolu. Mhm. xam nga. Mhm. gaa yaa ngi def ay réunion di dem gaa yaa ngi toog ak gaa yi di wax ak ñoom tamit ci euh, côté boobu noonu. dëgg mais xëy na tamit lu sotteegul quoi. parce que lu sotti rek lu jot rek yomb. dina yomb wax naa leen quoi 100 pour cent Galsen la ba tey Ruelle Kana la seet si woon fii nga xam ne mooy euh, KMF di Kër Mbaye Fall man nag dama koy wax di ko waxaat. secteur la boo xam ne euh, tey bu ma nekkee sax ci lii euh, euh, secteur bii moo moo ma moo ma def man tey li ma doon parce que ma Mamadou Alseyni jaar Rassa wan defe naa ñoom ñoo ma dugal ci milieu hip hop. xam nga ma yàlla dimbali ma sax ma bàyyi hip hop bi bàyyiwu ma ko sax ah parce que maa ngi ci hip hop ba tey mais. Mhm. ma tege hip hop bi noo nekk ci yeneen i yeneen i bagages yoo xam ne ba tey ci biir hip hop la mais lu ma mën a am rek maa ngi leen di bëggee bu baax a baax a baax Dia Rassa Alseyni maa ngi lay bëggee Mamène Dou aussi maa ngi koy bëggee bu baax a baax a baax ah, wan kàngam ah, defe naa kuru doole ji bless euh, ñu bëri war nañ koo a xam fii ci secteur bi parce que euh, dekkan nag ñi nga xam ne aussi euh, def nañ lu bëri ci hip hop. xam nga euh, me lan ngay wax euh, d'abord parce que defe naa euh, gars yi ñu ngi may signaler wala dafa am ñoo xam ni tey dañu war a ñëw def ay témoin wala wala wala wala lu muy demee parce que defe naa waxtu bi li ci des bëreetul. way way way gars yi tamit gars yaa ngi nii parce que gars yi bëree ngi moom. Mhm, mhm. d'habitude moom. Mhm. ñëpp a ngi bëgg a témoigner parce que <laughs> waaw xam nañ carrément seen kaana moom sa moom mooy loolu quoi ay <laughs> uhhuh, uhhuh. uhhuh. loolu tamit gars yi gars yi taxaw ñi ñëpp maa leen di jaare ku si mel ni sama ménagère moom la moomen moo waaw moomen moom waaju baax la quoi waaju baax la waaju baax mais il faut ma jël kenn il faut nga may ma il faut nga may mu jël ñaar parce que dafa am benn gayen ba xëy ne day laqatu quoi moom <laughs> dof 10 il faut mu jël dof 10 parce que kooku sax après moom nan def dara mais il faut mu jël ko parce que dafa ne euh, réel mais dof sa diggante ak dof parce que yéen ñaar kii day gunge fii ba fële dëpp kii gunge mais lan mooy problème yéen ñaar lan lan la yéen ñaar est ce que ñaar bokku leen sax benn kii benn gel sax est ce que gars bokku ñu benn gel yéen ñaar parce que ñoom ñaar dañoo graaw de est ce que yéen bokku leen benn gel lan mooy seen yéen yéen seen diggante yéen ñaar ci diggante dof ak kaana mais nu mën a ànd sax ci dafa kaana bi nan lañ mën a ànd loolu jaaxal yéen ñaar day jax seen ànd day jaxasoo quoi nan lay demee kaana bi wérul dof bi daa dof ah, ma loolu ma jaaxal yàlla maanaam du boole ñoo xam ne ni mënuñu def quoi dëgg la ñu euh. a def rek lay boole euh. xam nga dof dis nekk waaju waaju oyof mhm. gis nga mhm. bu taxee di wax man ku ci xamul dara bu toolee fee danaan waaji daa ñàkk jom dëgg la wala waaji daa ñàkk fayda <laughs> euh. fekk demeewul noonu dëgg la dafa baax baaxaayu boppam xam nga loolu doon lu nice doon lu nice quoi nga. Mhm. ndax diis moom it moom mënu ma ko fay. non dina dina dinaa ko jël léegi euh, xam naa ne da ngay sant gërëm rek xam nga après euh, moom dinañ ko dugal santal gërëm. ñi nga xam ne tey Mamène moo moom mënu ma ko fay ay jamono moom moo nekkoon suñu ménagère xam nga bu ñu demee concert ñëw xam nga <laughs> bu ñu gaa yee xaas ñu lekk ko mu dem fenn xam nga ñu koy bëgg baax bu nekk suñu grand boo xëy ne vraiment euh, li ma la yàgg wax euh, ku la ku gëm say bagage la mm. xam nga te gis na jom bi ngay demee ak fulla bi parce que moom du dugg ci ay caaxaan ah, xam nga bu nekkee sa ginnaaw di la pousser rek di la jàppale am na lu mu gis ci yow moo tax lépp loo ci mën a def gën a la góorgóorlu xam nga moom moom dañ koy bàyyi ak yàlla parce que suñuy jamono gis na ni mu sonne ci ñun ba tey xam nga da a dégg sax wala téléphone ziar la bége la nga xam ne grand bu baax la vraiment ku simple euh, di ko bége bu baax a baax ñu bàyyi la rek nga nga sant gërëm xam naa ne euh, ñu daal di teg émission bi <laughs> maa ngi gërëm waa rab diwaan ji mhm. waaw waa rab diwaan ji ku si mel ni Cheikh Marisa waaw ak yeneen gars yi xam ku lim juum moom mais d'habitude di nga am ñeneen ñoo cité dëgg la way ñoom ay borom baax lañ xam nga damay xewle ñu mën ni ñoo ko moom ba jamono ji may wax ak yow jamono ji mën a ñoom a nekk ensemble ma koy rafetlu tamit ñu bàyyi seen yitte bàyyi seen lépp di ànd ak man tamit loolu nekkul lu yomb quoi xam nga démb rek lañ mujjee dem concert ba ay quatre heures du matin nga déplacé ay kilifa sonal leen si àll bi bon loolu ma koy rafetlu man après damay mujjee sax te xaw ma lu waral loolu mhm. loolu nice deuxièmement tamit maa ngi sant sama ménagère mhm. Mamadou Dia mhm. waaw nit ku oyof nit ku bëgg lu muy def nit ku gëm réel kaana waaw bu ma nee woon bu ma amoon ñeentam rek waaw bon waaw artiste bañkat la quoi bañkat la quoi dëgg fa la parce que liy yombul sa ménagère mooy lijjanti yëpp mooy def ay affaire tegal ngay ñëw di assister di def rek. amul tamit nekkul lu yomb quoi. dëgg la deuxièmement bi tamit may gërëm sama mère sama mhm. yaay. Mhm. dafa sonn si man dafa sonn si man dafa sonn si man xam nga lu ma xewle day taxaw comme si que ni moom moo moom bis bi waaw gisaat naa concert bi passé bu ñëw toog ci kanam tey la ñëw sañse macha allah yaay booy ñu ngi lay nuyu di ñaan yàlla guddal saw fan ah bàyyi la fa ba euh, ba di la yóbbu màkk di ñëw di la wàcceel ci 4x4 yu baax yeeg yooyu ah yàlla ko yàlla def <laughs> xam nga tamit loolu nekkul lu yomb quoi nekkul lu yomb léeg-léeg maa ngi maa waa Kama Forever mm-hmm. ku Euh, ak euh, Tekino 224. Mm-hmm. ak euh, sama kaara bi borom tent bi il faut xam nga nice quoi mu doon nice uh-huh. waaw may sant tamit petit tamit moom it day may xewla mu téye bi tamit ñaay mel ko moomale boppam uh-huh. Ibrahima Sène Nika uh-huh. Mamadou oy ak euh, Ziza xam nga da koy day dafa rafet quoi gars yi ngay xewla ñuy teew di la teewal dafa doon nice may sant tamit waa Xambiram Music xam nga ma mi ma mi sa meen ak di bandi <laughs> borom budget ak bâche yu saf yi kees yi kees clair yi <laughs> mister daanaan daanaan daanaan moom it ay ndaanaan wàññi li ngay def gis naa ne affaire yaa ngi nice mi ngi cool waaw mais loolu la hip hop KMF la war nga ci mën a jàpp pour booy aussi voilà euh, affaire yi jóg xam nga label bi moom bu doon label bu label label bu neex label boo xamante ne d'habitude dafa jël caabi sax di la ko jox pour heure boo amoo ma am sens interdit si si jiw nit ku baax la nag ndaanaan boo bëggee répétition da ngay dem répétition sound ñu ñëw toog mm-hmm. programme instrumental yi génne la sound xam nga taxaw say mbir tamit nekkul lu yomb quoi Mhm. deuxièmement yi maa ngi gërëm tamit yeneen réalisateur nekk biir Sénégal ak yeneen studio yi labo 36 waaw xam uh-huh. lim quoi studio yi may fréquenté moom bari na trop uh-huh. bari na trop uh-huh. mais xam bi rab moom mooy sama kër quoi dëgg la gërëm waa OFT mënu ma leen fay quoi. waaw lépp lu ma xewle dañuy ñëw taxaw. dëgg la xam nga. Mhm. dinaa lim nag ba lim ba ba fàtte nag. <laughs> Eh? bopp mu mënul jàpp. lépp dëgg la loolu am na euh, ku lim fàttee rek nañ ma mm. jégal quoi xam ni xel bi moo matul. xam nga lu may xalaat moo bari. loolu am na. oui mhm. loolu la quoi. <laughs> en tout cas ma gën a xama ah, noonu la 100 pour cent Galsen la woon ñu ñëw fi nga xam ne mooy KMF Kër Mbaye Fall di sama secteur ah lépp lu mën a am ci aar man dama koy sant waa Kër Mbaye faal vraiment Mamène du euh, Modou sunu grand Ah, maa ngi leen di bëgg bu baax Alseyni jaarasa temps yi mi ngi ci rege bu metti saa wàññi rege bi bi doxul wàññi rege bi ngi koy bëggee ah, di la bëggee bu baax a baax Mouskalaf aussi maa ngi koy bëggee ah, di bëggee sama waa secteur fa nga xam ne fa laa yeewoo muy cité Tako bëggee naa leen bu baax a baax a baax asu taalibe Serigne Saliou Mbacke boobu maa ngi koy bëggee yow yàlla na sa jàmm yàgg di bëggee ñëpp booy ñaa depuis assurance sama rakk boobu mi ngi ci làmb ji maa ngi lay ñaanal yàlla dina may ay ndam yu bëree bëree parce que gis naa fi nga teg sa tànk nag noonu la ah, lamb ji nag léeg-léeg yi xaw la dóor kuus ma xaw xool bi xaw a sot mais nag depuis damay comprendre xam ne sama rakk nga ah, yàlla na la yàlla jàppale bu baax a baax may lay ndam ah, di béggee waa CIK TV équipe bi ma fa bàyyi yëpp ci label ba maa ngi leen di bu baax a baax a baax a baax naa leen bégg ak ndam laa leen di ñaanal cent pour cent Galsen fii la wàccan tey xaar leen ñu ci yeneen i bagage parce que ñun waaw dañuy kàkk tar i bagage yu dëgg naa la bu baax a baax a baax muskaala borom njañ yi moom xam nga ay kii yu naar la jël def koy ay njañ <laughs> <laughs> maa koy bëgg bu baax a baax a baax jaajëf sama gars yi waaw waaw ñoo lay nuyu moo xam nga di la telloo sa wàttuwaay di nuyu mbokk yi fi nekk ñëpp ak ñi fi teew ñëpp euh, yow moom am na lu la fekkee quoi uh-huh. fekke nga ci lu bari quoi parce que fii nii moom euh, comme ni ma koy wax ku waral émission bi tey mooy Réal Kaana ah. ñoo bokk benn secteur quoi ñoo bokk benn secteur Kamb la dëkk ma dëkk Kamb yaa ko fee teewal tamit quoi euh, fii nii fii nii nga toog ni place publique bi tey bi ñu def émission bii nii tey mm-hmm. euh, am na yeneen groupe yi fi njëkkoon a nekk groupe yi fi bëri sax ay cadre gi ay xam-xam ji xam nga gars yi bëri quoi yàgg nañ ko fi teewal quoi mm-hmm. mais tey Euh, réel kaana la quoi parce que moom moo aye quoi parce que mu nekk tamit booy boo xam ne tamit bu baax tamit boo xam ne mën nañ expliquer ci moom lu bëri la nga xam ne tamit jox nañu cër jox nañu gad quoi euh, hip hop hip hop moom hip hop moom fii mooy fii mooy daaram kamb kamb mooy daaram bu nekk Kër Mbaye Fall bu nekk bay Mbaye Fall bu nekk Kër Mbaye Fall dana uh-huh. kamb <laughs> uh, mooy mooy mooy teen bi <laughs> boo demee Caaroy uh-huh. euh, hip hop uh-huh. moom Caaroy Caaroy mooy hip hop mooy teen teen ba mooy teen bi tey boo ñëwee fii tamit noonu la demee tamit boo demee mbaaw tamit même chose tamit noonu la ay kunta kinte xam ay kunta kinte ñoom ñoo fa newoon waaw waaw gars yu bëri ñoom ñoo euh. seleba yoon euh. gars yooyu noonu ñoo fa euh, avant ñoom kii di ñëw avant yeneen groupe di ñëw quoi tey fii tamit noonu la demee tey njëkk njëkk rab fii ni Kër Mbaye Fall fii nii tey da Euh, suli dëgg bokk melokaan all right euh, euh, ah, am barxam ah, soxor kaddu këpp dëgg di mmh. mmh. soxor kaddu mmh. gaa yooyu noonu gars yi bëri ñoo ngi foon quoi bàyyi bëri ñoo ngi foon di ko teewal quoi <laughs> mhm. muy dem ba jëmi jamono muy muy mu di changé mhm. yenn gars yi di bàyyi yeneen gars yi di continuer mhm. di continuer di continuer di continuer di ko teewal ñun tamit ñi ko doon teewal ñun ci lañ bokkoon ci lañ bokkoon ñun ñii ci lañ bokkoon waaw Pastef moom moo fi nekk ci lañ bokkoon mais day dem ba jëmi jamono affaire yi day changé quoi day changé changement mooy lan parce que da ngay dem ba benn instant njaboot da lay wër am na yoo am na yu bëri yoo ko tal la demee quoi noonu la demee kaana moom benn conseil laa koy jox quoi mu bañ a xàddi quoi hip hop benn affaire bu yàgg la du benn jour du ñaari jour du weer du at dëgg mu jël benn yoon boo xam ne yow wóor yoon bii nii yow yaa ko gëm xam nga Matador dana la wax rab. foofu mbóor la. tigi tigi kay pare boole ci dégg ko tigi. waaw <laughs> parce que dafa metti dafa metti uh-huh. dafa metti ba pare yoon bi gudd. waaw mais na gëm. Uh-huh. parce que moom lu am na lu jafe. Uh-huh. parce que nit boo nekkee ci benn affaire. sa waa koñ wuyu la maire yi la rek pour yow am nga appui. na gën a góor góorgóorlu. parce que lii yombul. Euh, lii yombul xam na ma ne ko yombul. parce que tey ñun suñ jamono. yii uh-huh. amul woon yii amul woon. <laughs> pour ñu invité la sax da ngay jënd ba ñu invité la. yii amul woon am na lu jafe tey tey tey tey nañu ko am na lu jafe. Uh-huh. mais na yokk góorgóorlu na jàpp ne uh-huh. heure bii moo ngi soog a commencé liggéeyam. moo ngi soog a commencé liggéeyam. mu jëmale ko nag. gëm ko nag. continuer dina ci gis résultat. dëgg

gëm-gëm lu am solo la. gëm-gëm lu am solo la boo ko amee rek. Mhm. xam nga lépp góor góorgóorlu am na ñu nekk ci ginnaawam. Mhm. mu bañ jaar fu ñeneen ñi jaar. bu jaaree fu ñeneen ñi bañ a jaar rek. Mhm. dina dem quoi. te gëm naa ne dina dem. booy bu kuul la. booy bu jox grand yi respect quoi. parce que loolu la ko affaire yi moom boo joxee grand respect rek da ngay dem. boo nangoo déglu grand yi da dem. Iya. parce que ku la ku la jiitu ci nekk mu laal la fi ngay toogee quoi noonu la demee quoi tabarkalla macha allah jamono ji rob bi naqari ji lii jom rek la li mu ciy sàkku nag yàlla na ko ko yàlla defal yàlla lu ma taasu mbàkk jóge ci mu yóbbu ko yaay bu ci koddu say jom rek la fi bàyyi mam bëggee sa yaay adar ka def ngay mii toog mooy sa yow boo wootee te neexu rek xama koy woote tubaarkalla macha allah toxoo naanoo yooyooyu doon yàlla la yàlla jàppale yaa baax yaa am jom yàlla nel nag lii ba ngay dem Amérique ci kattanu yàlla naa de yaay sunu na ba kon war